billahi min sirra rajim li mooy kitaab al axdari moo nekk nii gis nga ko muxtasar alcheikh sayidi abdirahman al axdari fi li abadat ala madhabi al imami malik ibni anas radiallahu anhuma amin moom lañ la bëgg andil bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaan yàlla mi nga xam ne mooy yërëm ko ko neex fii ci àddina arrahim yi mooy yërëm ko ko neex ci àllaaxira fa la ñu jëm wa sallallahu yann yàlla doole teraanga a xéewal ala sayidina ci suñ sanga muhammadin muhammad wa alihi ak waa wa sahbihi ak ay saxaabaam wa sallamata mu musalal ko aw xeetam alhamdu cant lillahi neexal na yàlla rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yépp wa salaatu xéewal wa salaamu gu ànd ak mucc ala sayidina yann nekk ci suñ sanga muhammadin muhammad xaatimin nabiin kii mottali ñiin soloo wa imaamil mursaliin tey njiital ñi ñu yónni ñi baax na foofu incha